dama ne. Ah. animateur yi mu ngi ci métier te bàyyi ma wax ji maa ko moom. parce que Serigne Bamba Mbacke. dama dugg dama leer da lay leer. ci loolu. Mara Mara. Mara sa papa gi nii. ah waaw. barke Serigne Bamba. demee incha allahu rabbi mooy dernier délai. invité nañu ko ñeenti yoon mu faussé bu subaa bu faussé dootul teg tànkam 2STV yi kooku mooy Boucher Ketchup na reer jëwuma ko rek ndax li may wax mi ngi jàkkaarloog man ni mu ko ko jaaral ay bëtam di ma xool dégg nga li ma la wax. non suba incha allah dinaa ñëw entre temps suba entre temps. 17h man ak Omaro suba 17h. entre temps mais dégg naa ambiance bu rëy nga daal foofu. ambiance bu rëy la ñuy waajal ndax Samba Diarra Mbaye indi na 12 sabar fas yéene ko teg en live. Oh!

waaw tey nga xam ne musuma way kon li du programme du dara